si waat nañ leen ko gis nga oh, gis nga oto bi oh oh oto bi lacrymogène bi mi ngi si oto mi ngi ci taatu oto bi voilà et puis xale yi ñu ngi gën a boyal ak plastique yi Oh. donc euh, situation baa ngi nii fii nga xam ne mooy au niveau du terrain xaar yàlla euh, yéen gis li nga xam ne moom mooy euh, la jeunesse ginnaaw ba so génnee pour jaamaarloo ko ñi nga xam ne moom mooy moom mooy takk der yi donc yéen a gis. l'événement bi nga xam ne tey moo coïncide avec vendredi 9 février moom ndaw bi nga xam ne daal dinañ koy blessé waaye di fàttali également ki nga xam ne mooy Daouda Gueye bu frapp daal dinañ koy xam ne mooy Pikine ginnaaw bu mu jullee euh, li nga xam ne moom mooy tisibaar ba noppi. Matar bi gestu ñu léegi xool ñu ñun moom sànq ba tey ñu ngi ñuy ñamal ay lacrymogène. ñun suñu xoolee garaaw ñun moom. waaw mënuñoo daax fi ñu nekk dañuy liggéey te fu ñu nekk jàpp nañ ne moo gën a wóor muy si kaw terrasse bu Walfadjri mhm. wax Walfadjri wax démocratie bu nekk donc nañu wax ne ndaw ñi lu ñu bëgg muy non à un report des élections mhm. non ak li nga xam ne moom mooy acharnement médiatique par rapport ak Walf ak ñu ni mel mhm. nañ leen bàyyi réew mi am jàmm parce que réew mi laal la kenn rek moom mu am ji muy muy réew borom réew moom laa wax léegi dama ne moom tey ci benn ku ci benn euh, euh, nu mu tuddati rek euh, appel bu mu def rek tey mbir mi mën na rentrer dans les lords mooy li ma wax mhm. Euh, tey dégg nañu xalifa ñaseen bi lew na la mu xalifa euh, ñaseen bi du moins la mu wax jëmale ko ci kër gi. d'accord ci report bi. voilà non seulement sax mais la mu wax jëmale ko ci Walf ñun ñëpp seetaan nañ ko déglu nañ ko et je crois que tey lu ñu bëgg bëgg rapport bu fekkente ni ñoom peuple bee tax ñuy laaj suffrage sénégalais te sénégalais bëgguñu ko mais nañu dem élection. parce que bu fekkente ni aussi ñoom dañu ne ndaw ñi peuple bi moo leen tax a jóg te peuple bi lii la bëgg te mënuñu ko defal li mu bëgg loolu aussi dina compliqué. Mhm. dina compliqué mais li ñuy dund tey nii métti na trop. Mhm. donc on doit partir euh, def ay élection présidentielle 25 février 2024 loolu la ñëpp bëgg waaye Union européenne également génn bataaxal di wax président de la république ak waa CEDEAO mu daal di li nga xam ne mooy le calendrier républicain. malgré li nga xam ne moom moo am li recours euh, bi nga xam ne moo tukkee woon fële sa conseil constitutionnel Thierno Alassane Sall également euh, ñu koy apercevoir sànq rek fi nga xam ne mooy place de la de la nation mu ñëw. et puis gis nañ Thierno Bocoum moom aussi il est blessé. waaw Thierno ne ñu koy signalé par rapport ak si si banlieue parce que loolu dama la euh, tey dina yenn gox yoo xam ne nañ manifesté waaye kenn du kenn du leen wane. li manifestant yi di wax moo doy waar c'est-à-dire dañuy yemuñu ci saaga policiers yi rek mais li ñuy wax dafa doy waar en tout cas. jërëjëf jërëjëf donc euh, lu fu mu doon waxee rek mooy li nga xam ne tey mooy banlieue bi yeneen gox yi nga xam ne tey laal euh, tey ñoom suñuy jàmmaarloog takk der yi du am benn homme de bu fa nekk te loolu jàpp ne c'est un risque donc yeneen gis ndaw ñu ngi gën di avancé di xeer mooy mooy takk der ñu ngi gagné bi parce que boo xoolee mm. sànq dañu def benn foule mm. am ñu taxawee ne mais actuellement dañu gën a jege si mm. te léegi li leen baare woon dañ dugg ba si ruq yi taxaw jàkkaarloog ñoom. gis nga policiers yi gis nga leen gis nga buñ tiiree xale yi dañuy jëlaat lacrymogène yi delloo leen ko gis nga euh, gis nga seen oto yi actuellement xale yi li ñuy sànni yëpp ci seen oto yi lay dem. donc euh, li mooy la situation fii nga xam ne mooy au niveau de de Walfadjri euh, fi nga xam ne mooy terrain xar yàlla parce que terrain bi daal daal daal lu ñu fàttaliku. terrain bi lu ñuy fàttaliku moom mooy la coalition bi nga xam ne moom mooy yeewu askan bi fii lañ ko daal di woon lancé woon. Euh, fii euh, la Ahmed Aïdara yëkkati woon ay kàddoom laataa muy nekk maire fii la ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko également euh, nekkoon ba ñuy lancé seen boobu mouvement pour dem waajal li nga xam ne mooy élection locale yeeg législative li ni mel ginnaaw ba leen wallu daal di rejoindre. donc terrain na terrain bu symbolique si ay jamono soo xoolee taarixu réew mi histoire ki nga xam ne mooy Landing Savané également yàgg na fi def ay ay mbiram. na benn boobu moom ci biir kër gi la dugg. voilà koy dañ koy fay. xoola gis nga dëpp nañ si wala jël ti suuf dëpp ko ci. jaaxal ndaw ñi la moo leen jàngal lu mel. <laughs> waaw Matar xam naa peut-être euh, yàgg nekk ci ci ci manifestation yeeg terrain bi rek. Mm. parce que boo seetloo sànq yoruñu siwo bi. Mm-hmm. am nga am na instant boo xam ne am na ku leen woo. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu daw dugg ci ruq bi. sûrement ci lañ demee récupérer siwo bi gars yi si si si digg fas bi lañ nekk en fait. waaw euh, mais fim mu ne nii lépp lu ñu am ci ay ay moyen euh, pour def ko dañ koy def <coughs> donc euh, gis ngeen noonu li nga xam ne moom mooy. ba tey ñu ngi jàmmaarloo ko takk der yi. donc ñu àggali mbir yi euh, wan leen li nga xam ne moom moo fi xew donc euh, su la ñu mënee wool euh, équipe bi nga xam ne moom moo nekk fële nga xam ne moom mooy au niveau du place de la nation ginnaaw bañ déggee ne dafa am benn taskatu xibaar bi nga xam ne wala benn homme de média bi nga xam ne dafa dafa am ay problème donc ngeen ngeen ngeen ngeen jëlal ñu information fële nga xam ne mooy direct place de la nation gis ngeen également takk der ñu ngi avancé waat di chargé waat seen i seen i mbir pour dóor li nga xam ne moom mooy. yéen gis ñu ngi continuer di sànni seen lacrymogène mu doon li nga xam ne également euh, mun na dal ku ne. mun na dal ku ne wóorul. et puis li grave mooy benn instant ñoom xale yi dañuy jege si ñoom ñu tas ful bi après su xale yi demaatee ñu doog a kiiwaat ñu doog a tiirewaat li nga xam ne moom mooy lacry lacrymogène gis nga ñoom dañuy ñëw jege si. dóor côté jàpp euh, rond point xaar yàlla bi. dafa am ñu fa nekk aussi di di di taal. Euh, les manifestants. waaw boo xoolee stratégiquement loolu ngay nekk di gis parce que fu mu toll nii euh, xale yi boo xoolee gis nga am na ñuy sànnee nii am na ñuy sànnee nii ci benn ci beneen côté bi donc bu fekkee ñii dañuy sànni fii ñii jàkkaarloog ñoom di sànni ñoom euh, pour ñu contrôler situation bi dina compliqué te gis nga côté bële ne sama kanam en face aussi c'est du pareil au même mm. yaa ngi gis buñ euh, xale en fait. taa pëne yiñ taal moo tax dañuy ay xeer pëne yiñ taal moo tax fi ne nii policiers yi pour ñu avancer sax problème la gis nga leen noonu gis nga ñu ngi jéem a pour ta pour fay ful bi gis nga leen noonu voilà gis nga noonu gis nga noonu gis nga gis nga donc gis nga xale yi ñu ngi commencé waat dem dajaloo voilà gis nga wax stratégiquement la xale yi di xeexee nga gaay saay rek gisaat ful bi dawaat gen mhm. xam nga policiers yi la moo nekk seen stratégie euh, dàq booy pour ñu pour ñu pour ñu dugaat ci koñ mais nag lu gën a booy leen may sens mooy si biir koñ bi lañuy lañuy dàqani te suñu demee as yaa ngi te fii nii koñ dof koñ dof la bul fàttali fa bul fate moom moo fi waxoon daa encaissé xaalis pour. Euh, téye même daw nañ rek riir wuti policier yaa ngi gis. waaw dafa mel ni dañ leen di dàq. dafa mel ni dañu dàq ji policiers yi dafa mel ni dañ leen dàq ji. leen dàq ji policiers yi leen dàq ji. dafa mel ni dañ leen dàq ji. dàq ji policiers yi. Eh, dafa mel ni dañ dàq ji policiers yi. oh. oh jàpp nañ benn poli oh, dàq ji nañ policiers yi yaa ngi gis policiers oh, dañ leen dàq ji. dañ leen dàq ji daw. dañ leen dàq ji. la oh la. lan la xooloo ma xale bi. laay dañ leen dàq ji ñu daw euh, euh, doy na waar en tout cas doy na waar torop torop torop torop doy na waar. doy na waar lool euh, et puis bi da dafay naqaree contrôler parce que xale yi fu ne la ñuy génnee ci mbedd yi. Mm. koñ bu ne mm. ruq bu ne la ñuy fëllee. Mm. xam nga sànq seen nga leen ñoom ñëpp ñu daw. te yaa ngi képp ku ñu fi jàpp. Mm-hmm. muy takk der du xale duñ la baal. waaw xale yi ils sont dans dans bi nga xam ne yaa ngi gis kii nekk ci kaw euh, euh, li nga moom mooy. parce que moom moom bokk na si ñi nga xam ne. ñeen ñi voilà gis nga kii da dem gis nga day dem yoonam. gis nga kii da doon dem yoonam ñu jàpp ko gis nga. da doon dem yoonam ñu jàpp ko donc une autre arrestation même kuy dem sax di romb rek dañu lay jàpp boole si mbir yi. moom bokku ci euh, da doon romb rek. bokku si da doon dem ñu daal di koy jàpp di ko yóbbu donc une une autre arrestation. gis nga moom dañ koy jàpp nii gis nga xoola gis nga dóor na ko dóor na ko dóor na ko gis nga da ko dóor. Mhm. dugal ko ci biir te pourtant moom da doon dem rek. Mhm. donc yéen a ngi gis. gis ngeen ko noonu. donc euh, une autre arrestation waaye di wax na am na ñeen ñoo xam ne bokkuñ ci dañ leen bàyyi ñu ñibbi euh, am na am na am na am na keneen kuy tàllal loxoom yéen a gis laal am na keneen kuy tàllal loxoom xamuñ nag ba xam ne dañ ko dañ koy jàpp wala wala duñ koy jàpp. gis nañu policier bi euh, daal di woo tubaab bi parce que bi muy dugal. Hmm. bi muy dugal waa ji moom moo ko filmé. Hmm. xam naa looloo tax ñu woo ko. ma est-ce nangul téléphone am. moo la laal la. Euh, journaliste mag a ngi nii ah. journaliste mag la c' est journaliste français bi nga xam ne affaire enquête investigation lay liggéey. voilà gis nga. Mhm. moom journaliste français la. Mhm. voilà et puis gis nga jël na arrestation bi bi ko waaj a dóoree ni ko dugal ci biir mhm. xëy na loolu moo tax mais Matar xoola xoola xale yi actuellement ñu ngi gën a ñëwaat. ñu ngi gën a ñëwaat pour jëlaat li nga xam ne moom mooy euh, seen place bi ñu positionné woon woon. daal damay nuyuwaat euh, bu baax a baax di nuyuwaat waa diaspora bi ñu nekk si région yeeg sous région yi. Mhm. di wax ne notre pays ki nga xam ne moom mooy euh, Abdoulaye Bathily ana fan la Abdoulaye Wade nekk ana fan la nga xam ne moom mooy Ndongo Samba Sylla nekk les écrivains Boris Diop ana fa nekk pour daal l' action si lu ñeel bu report des élections ba mu jur li l' actualité ma bëgg bi ñu gis ne dafa xuloo ak président de la république mu mel ni un maillage médiatique un coup monté pour dans une photo conseil des ministres Amadou Amadou Ba ak le président Macky Sall lan moo doon seen problème. xam nga Matar euh, euh, donc pour un petit rappel sitting lañ fi woote woon euh, ñëpp ñëw bi ñu ñëwee ñu taxaw commencé def seen allocution dénoncer li nga xam ne moom moo metti wal fajiri donc ci biir loolu lañu ñu jékki ñu gazé leen la lacrymogène ñun ñëpp ñu daw ci. ci dugg ci biir locaux yi ba ci biir locaux yi dóor nañ fa ay grenades lacrymogènes donc bi loolu amee ci la xale yi commencé génn wane